bu ngeen di travailler pour être solide et faire face mais euh, est-ce ngi ci réellement à fond moo waxee mooy am na yu xew dans le passé yoo xam ne gisuñu leen ci te Abdourahmane Diouf ñu ko xam-xam ci réew mi bëriwul euh, parcours expérience vécue macha allah tey ji boo seetloo ce bloc de l'opposition tey ñu si bëri ñu ngi diriger euh, di gérer te. ëpp ñu toll ñu fi Abdourahmane Diouf mais leen ko may mooy dañoo nangu bokk ci benn bloc bu solide tey li d'après les constats qu'on fait gis am na ñu ànd mais gisuñu leen ci benn yoon. ñun nag dama bëgg ci sa laaj boobu ma tontu ko ci ñaar. Mhm. ñun riirandoo duñu yóbbaale. le président Abdourahmane Diouf n'est pas venu en politique ne pas en de travailler dans le cadre d'Awalé pour que lu riir rek mu dem ci loolu. benn. Mhm. mën nañoo jàpp ne fii ci Sénégal fii ñu tollu tey amu ci kenn koo xam ne ci opposition sénégalaise moom moo ko gën a yàgg ci opposition te da koy wax ku ne au lendemain des élections de 2012. moom moo njëkk génn nekk ci opposition boobu yenn parti yi ngay dégg mm-hmm. yépp ils étaient en train de travailler avec le kon tey saa su génnee day wax ne nañu booloo nañu xool nu ñu def ko gis xam nga yow da nga wax bu baax parce que président Abdourahmane Diouf malheureusement sénégalais xamuñu ko bu baax parce que dafay gis loo xam ne yegg seegul bu ñu nekkee am pleine campagne électorale ci législative yi muy naan moo gagné ñu ñàkk gagné quel que soit l'issue des résultats dañoo waral toog ñun ñëpp ci opposition bi ñu dem ñu dem autour de l'essentiel ñu toog ñu discuter waxtaan. Mhm. nit ñu mën a xam ne nan la ñuy defee face au pouvoir malheureusement du loolu moom moo am du ñu jiiñ kenn jàpp nañ ne loolu c'était une étape fu ne nii lu ñuy nas nasuñu ko pour ñun kese ñu ngi koy nas ak toute l'opposition. toute l'opposition les forces vives de la nation. est-ce que yéen a ngi ciy dox. on yemul ci ay wax rek. ah non mënut a ci ay wax man xam nga ne man xëy na peut-être yow xamoo ma. <laughs> Mhm. mais man du ma waxantu sama wax mën naa gaaw mais du ma waxantu lu may wax dama koy teg foo xam ne firnde yu wër la Abdou le président Abdourahmane Diouf wax na ko barki démb ci conférence bi mu amoon ñu ngi ciy liggéey duñ ci wax lenn nag agum parce que du ñun ñoo war a euh, déjà. à ce la fi nga xam ne fa lañ toll toog di ci wax yenn aller au détail mais ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey liggéey bu wër boo xam ne koo ci mën a xalaat ñi nga xam ne ñoom ngay jàpp ne ñoom ñoo am doole ak ñu amul doole. non doole moom mbooloo moo koy def. ñun ñëpp mm-hmm. ñun ñoo booloo. di ko liggéey te bu soobee yàlla bu sottee di ngeen xam ne euh, Macky Sall aura en face de lui la vraie opposition. parce que depuis boobu ba léegi nit ñi dañuy nekk ay pàcc ay groupuscule ay nangam ah dafa laal laalaake xam nañ ni moom élimine na Karim élimine na Khalifa il est avec Sonko di lew toog moom mu ngi def lu nekk ak Abdourahmane mais il va finir par éliminer tout le monde parce que ce qu'il ne veut pas c'est d'avoir quelqu'un de crédible en face de lui et s'il y un seul homme s'il y a un seul candidat crédible qu'il ne peut pas dénier sa crédibilité qu'il ne peut pas absolument qu'il ne pourra nulle part essayer de décrédibiliser au Sénégal c'est le président Abdourahmane